ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR AKBAR yéen mbokk la télévision Zone 7 TV

Ndog avec dafa nek ben émission bo xamné day dalal bép célébrité bép porteur de voix bépp médiateur ou bien bép régulateur sociaux nek ci biir société bi am ci baat euh, fas taxawal askan bi ak yu mel donc Ndog avec nak yar ren yam ak euh, saison numéro 2 suñu premier numéro nak ñu ci dalal ben suñu kilifa suñu papa suñu xarit suñu lépp ñu di wuyoo ci li nga xamné mom moy touru turu euh, Lamine Fall ku wax El Lamine Fall nak xamné moom moo taxawal li nga xam ne moom mooy taxawu Sénégal bi nga xam ne xalifa euh, Sall moo ko jiite fii si diwaanu Sénégal ku wax euh, taxawu Sénégal rek sa xel ci Lamine El ji Lamine Fall lay dem kooku lañ dalal tey moo nekk suñu invité du jour papa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. ñu ngi lay jéggaluwaat di la waat di la di la baal bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy euh, weer bu sell bi ñu dugg nii. Ah, jërëjëf maa ngi man delloo njukkal boobu nga ma jox maa ngi leen koy delloo di ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu lu sut suñu njort yàlla bi sallallahu taala alayhi wa sallam mbokk yi ñoo ko déggandoo mu nekk ay eh, kàddu yu sell yi nga xam ne suñu suñu suñu suñu invité tey moom la moom la moom la jote yekkati pour le moment donc balaa ñuy xuus si waxtaan bi rek comme ku ci weeru koor lañ nekk te sekkeen yi ak jaween yi dañuy baaxoo di bu ñuy waajal bu ñuy nekkee ci weeru ko dañ ciy dem ak xerteel ak euh, yu ni mel donc bu ñuy waajal di ndogu di di di si boole li ci bokkul ak yu ni mel. Mm. donc nag tey ñu bëggoon xam suñu suñu suñu suñu invité bi moom nan lay dundee li nga xam ne moom mooy euh, weeru koor weeru koor bu tersoo nan nga koy teeruwee ak naka ngay dundee ci weeru koor bi ak sa horaire ak yu ni mel. Euh, loolu moom dina yomb wax lool ndaxte man Fall sant. te xam ngeen ne ku sant Fall do xir ci affaire ndoye ni ah buñu dog dal dina doge tandarma ah guux ndox mos tuti café bu andak ak mew ak muru tuti mburu nak la wax tuuti muru ah buñ koy accompagner rek bon buñu génnee ci lolu nak dina dallu ba julli ge ba paré après luñuy mos rek lu démé nek tuti ciép tuti ginar ginaar nangam nangam Euh, euh, yooyu rek la ñuy faral di jël ak tuuti crudité surtout ah moom la ñuy faral di moom la ñuy faral di xewloo waaw. léegi tey suñu bëggoon xam suñu papa moom ban plat la gën a la gën a préféré maanaam ci mois de ramadan bi maanaam sa hygiène alimentaire gis nañ ñu ngi koy gérer parce que ñu nekk mm-hmm. yow ñoo passé li nga xam ne moom mooy ndog bi. waaw man daal sama hygiène alimentaire mm-hmm. ni ma koy passé moo di faral di lekk crudité surtout. ah faral di lekk crudité mais am naa benn plat boo xam ne bëgg naa ko lool mais sama waa kër dañ ma ciy sax presque coince muy maafe yàpp mm-hmm. maafe yàpp moom bëgg naa ko lool mm-hmm. waaw mais nag sama waa kër dañ ma ci dañ ma ci get maanaam dañ ma dañ may dox tuuti rek bariwul mm-hmm. waaw loolu daal lañuy faral di nekkeek man di ma ko di ma ko def waaw. dëgg la donc est-ce que suñu papa tamit day faral di def sport comme euh, mois de ah. ramadan bi nit ñi dañuy gis ne bu ñu demee julli ji li nga xam ne moom mooy naafila ba pare wala avant naafila bi dañuy def tuuti sport yëngal seen yaram ñu mën a wàcc waajalaat li nga xam ne moom mooy reer bi ak xëdd yeeg mbëstan yeeg yooyu noonu. Euh, waaw man nag sama sport li ci ëpp moo di comme que maa ngi dëkk fii deuxième. Mhm. damay bàggante lu bari escalier yi. Mhm. esport defe naa ne bari ay naafila baax na ci lool surtout nag bu sa biir feesee boo naafila fukki rakk rek nga xol waa affaire bi dina xaw a rës bu baax mm-hmm. ah loo ci dolli rek day daal di baax mm-hmm. yenn saa yi nga doxantu ba boori kër góor a xule mm-hmm. ah jàmm santeeg moom ñëwaat sa kër loolu it dina tàllal tànk yi dina ci baax waaw. Ah. voilà yi nga xam ne yaa leen nekk di seetaan la télévision Zone 7 TV ñoo ko déggandoo muy suñu papa. ñu jotoon waxtaan ak moom si naka lay ndogu bi ndogu koor bi su nan la koy nan au passage aussi directeur général mooy père Gore bu tout à mm. voilà ngi effort bu a baax ci li nga xam ne donc papa avancé mm. côté politique bi. Mm. surtout parce que comme nous présenté tout à l'heure donc ku wax taxawu Sénégal wax euh, li nga xamné ne moom mooy Lamine Fall si Bambilor hmm. ñu gis ne chaque année amna ay euh, ak ay ay manifestations ou bien ay cérémonies yo xamné yang ko fi yang ko fi organiser fii si diwaanu Bambilor di di hmm. euh, di massifier. di hmm. jéem agrandir sa parti ak yu mel donc buñu ñu bëggoon xam yow sa histoire ak li nga xamné ne moom mooy taxawu Sénégal tay lan nga lan ngay wax ñi nga xamné ne ñoo nekk di la seetaan. ah loolu boma ko boma ko laajee dina contane lool. pour tracer li nga xam moy sama itinéraire mhm. politique té man kuma xam xam yaguma dugg ci politique c'est vrai mais buma ci duggé mhm. yalla sama professeur bu nan Libas Ndir ah mom la andalon ci PS en 2012 bi nga xamanteni bi ànd ci PS gis ngeen ni affaire yi dami affaire yi éclaté wu légui man ma topé Khalifa Sall ñu dem ci taxawu Sénégal mhm. donc xam nga kon du itinéraire bo xamné ne yàgg na donc euh, bi nga xamanteni bi duguna ci taxaw Sénégal euh j'ai découvert un homme muy Khalifa Sall donc may wax nit ñi toujours né c'est pas le nom Khalifa Sall mais Khalifa Sall limu mu incarné ak limu def ak fi mu jëme nit ñi lolu moy li nga xamné moma bayyi ci Khalifa Sall modi Eh, ken duko ko mu wax kaddu go xamanteni bi bu ñaaw la ken duko ko mu wax lo xamanteni bi bii njuumte la ba nangam ak nangam dedet mais c'est un exemple donc li nga xamanteni bi mom la tek ci suñuy loxo te mom lay doxal ba mu ñëwee fi ne khalifa nun dey li nga xamanteni bi mom nga mom nga ñu wax parce que khalifa Sall c'est pas le nom khalifa mais idéal te idéal boobu nga xamante ni bii moom la ñu jox ba ñu épouser ko ba nekk ak loolu ne naa ko ëllëg boo doon génn it da ñuy bàyyi ci loolu mais nun lii nga ñu jox duñ ko mus a bàyyi lii nga ñu teg fii nga ñu teg duñ ko mus a bàyyi kenn du dégg mu wax ne maa waxoon waxeet kenn du dégg mu wax lenn baa mu dugg ci loo xamante ni bii waru cee dugg baa mu wax loo xamante ni bii waru koo wax njëkk lañ xam ci moom ak teraanga lañ xam ci moom te nag mu nekk loo xamante ni bii euh, euh, li naan oiseau rare lan mooy loolu c'est un homme d'état ma dégg xam ngeen ne de nekk ci état bi génn uññi suturay état bi génn lépp état bi tekk ci mbedd mi kenn xamewul loolu ak xalifa parce que ak lu mu doon dafa am bàmmeelu biir dafa dafa am loo xamante ne bii moom lay incarné ci loolu la nekk ci loolu lay doxal donc loolu moom lañ toppee xalifa mbaax googu jub googu ak xam gi mu xam xam lan xam réew googu mu xam moo tax ñu topp ci ginnaaw xalifa fas yéene ko jàppale fas yéene ko jàppale parce que nun euh, notre med notre modeste personne euh, euh, amul sax solo li am solo moo di nun ki ñu gis ci kanam moo di xalifa Sall waaw nun daal ñu ngi ci ginnaawam te di ko déglu bu nee wuy wuy la bu nee noo noo la nun daal noonu lan fas yéene taxawee Khalifa salifi mais bala may sori foofu ci point bobu mënumaa jall point bobu te wa bambi lor quand même sant ñëpp ndaxte dañoo am lo xamne dañ ko réussir muy lu difficile yaa ngi may dégg muy lan muy bolo nek ben bolo ku nek yene sa morom jam ah lolu buma ko waxe ma ngi wax Modou Sall ak Daouda jong ak Ousmane Rougui ah ak ak Danfaxa gis ngeen ni ñu def mais dama yéemu gis nga damaa kontaan ba bu ma toogee sama kër yaa ngi may dégg li may ñaan yàlla moo di ànd bi yàlla bu ci cat dugg yàlla bu ci ca dugg parce que ab ànd ab gor dong la nit ñi ànd koo ne jëlee poste bi mu ne la jox ko sama morom koo ne jëlee poste bi mu ne la jox ko sama mais loolu dafa sedd xol yaa ngi dégg yàlla na leen yàlla jàppale ñoom ñëpp ba nga xamante ni bii ëllëg ah, Bambilor mën a dem ba ci kanam parce que li ma leen di wax toujours moo di bambiloor doomi Bambilor a koy defar bu ma nee Bambilor doomi Bambilor koy defar nag commune bi yépp laay wax bàyyuma gorom bàyyuma mbëtt bàyyuma déen bàyyuma fenn donc nun ñoo war a xam ne suñ commune bu baaxee nun ñoo koy baaxal nun ñoo war a àndandoo joxante loxo ah ñu liggéey liggéey nag amul tricher te nee naa la kaay ñu liggéey warta am coow bu fekkee ku nekk la ngay wax ah mi ngi ci yow liggéey moo la animé du am xëccoo du am coow parce que ku nekk xam nga la nga man bu ko nekkee ca la nga man ñu boolee man-man yooyu rek day daal di dox. voilà foofu la ñuy jaar sax ñu xuusaale parce que defar nga ñu benn benn transition parce que foofu lañu doon jëm si sax. Mhm. mooy ci li nga xam ne moom mooy tolluwaayu commune Bambilor bu ñu nee tolluwaayu commune Bambilor nag mooy li nga xam ne moom mooy projet ak travaux yi nga xam ne euh, loolu euh, monsieur le maire actuellement Ndiagne Diop. lancé na ko ci diwaanu commune Bambilor mooy mm-hmm. euh, comme lu ñuy woowee lu ci mel ni ay voirie yi nga xam ne moom lañ commencé di gis travaux yu ñu entame nii mm-hmm. donc bu ñu demee tàllal suñu micro ñenn ci population yi ñenn ñi d'accord nañ accepté nañ euh, ànd nañ ci li nga xam ne moom mooy travaux yi nga xam ne moom la euh, monsieur le maire ak équipe municipale bi teg ñeneen ñi tamit dañoo d'accord nee nañ euh, d'après ñoom lu ñu teg comme alibi comme euh, motif nee nañ euh, Bambilor seen problème seen problème majeur actuellement moom mooy li nga xam ne moom mooy problème inondation donc balaa mu doon teg quelconque travaux waroon nag gérer li nga xam ne moom mooy canalisation d'abord donc tey nag ci travaux yooyu noonu lañ bëggoon suñu papa nga ñëw ci tuuti rek mm-hmm. par rapport ak yow ban appréciation nga am ci li nga xam ne moom mooy moom mooy travaux yi nga xam ne moom la mairie bi lancé donc je euh, bala ma def recul bu mhm. recul bu def moi je suis né à Bambilor yàgg Bambilor kenn musuta gis Bambilor inondé musuta mhm. am mais bu fekkee Bambilor inondé de, dañuy la question que Bambilor inondé ah mhm. donc nous ñep ñoo ci de suñu dafa ay pont pont fi nekkoon moy pont Malick batch pont Sini Sène ak fi ci garage bi amoon na pont ak feulé ci fond ba ñu naan ko donc ndox mi bu joggé Thiès day jaar tan wacc ci Bambilor ñew ñaay malaka bu ñewé après feulé continuer pour dem Lac Rose donc ndox momu boko teyé mais dëkk bi day fess donc problème bi yépp lool la Bambilor musuta fess donc légui nañu canaliser ndox mi mu dem lac Rose ah li ñu koy canaliser moo de pont yi nga xam ne moo fi nekkoon ñu ubbi leen parce que dañ leen a fatt nag en réalité comme que dañ leen a fatt en réalité ah man maa ngi interpellé maire bi Ndiagne Diop maa ngi lay interpellé ci loolu pont yi nga xamante ne bii dañ koo fatt nañ koo dindi sinon nit ñi dinañ sonn. est-ce que papa. waaw doguma la sax est-ce que gisoo ne c'est pas trop tard mooy daloo mooy pont yooyu noonu nga wax ñu fatt parce que on de ce côté si côté de comme si côté càmmoñ bi. Mm-hmm. dañ ko ñu ba mm-hmm. récemment bu de ci côté station Bilal bu a fait si Comico di côté est-ce que le Japon, c'est trop tard. pas il n'est jamais trop tard de bien faire Ndiagne moi mère, bi moi moi a bu xam na la ndox jaar c'est un bien commun. bokkul ak loo xamante ne bii bien personnel la te nag bu fekkente ne bii ndox mi kër la Lamine Fall moo ko baare mais nan toj sama kër je commence par moi-même bu dara desul lu dul sama kër moo baare ndox mi nan toj sama kër yaa ma dégg pour que ndox mi mën a jàll parce que li muy lor te defarul dara ah kenn nekk na ci këram nangam nangam mais nañ ko dindi seet fu ko jox mu nekk foofa bu ko defee nit ñi mën a nekk à ah kooku man maa ngi ciy interpellé maire bi te yaakaar naa ne li ma wax dina ko dégg te am naa yaakaar ne it dina ci taxaw si sama yaakaar am naa yaakaar ne dina ci taxaw pour que loolu mën a mën mën a sotti waaw. voilà donc euh, dañuy daal di wutali li nga xam ne moom mooy euh, actualité nationale bi maanaam bu ñu jugee ci li nga xam ne moom mooy. Euh, au niveau communal wax nañ jafé euh, jafé D'après, yow euh jafé mm-hmm. euh, jafé yi nga xamné ne jot nga ko ci li nga xamné ne travaux yu yu commune Bambilor ak équipe municipale bi ànd ak monsieur le maire yëpp mettre en mm-hmm. place pour mm-hmm. jàpp ne ñom japp ci seen gis-gis ne loolu la Bambilor soxla. parce que bo xolé toujours bala ñu joggé ci loolu rek bo xolé moy bayal yi ñu doon wax comme bayalu Baye Malik Fall bi par exemple ak bayaalu Baye Cheikhou Thiam. yoy non yëpp ay bayaal la yoo xam ne yi dañ fa daan dem di tàggatu di manam comme amuñu ben espace de loisir foofu lañ doon dem pour football ak yunu mel mais dañoo gis ne léegi dañoo def foofu noonu ay ay ay tali dër tali dër espace boobu noonu yëpp est ce que yow tamit ne rafetlu loolu balaa ñuy génne si point bi nga xam ne. waaw moo ñeel loolu. man daal bala maa génne ci point boobu. Mhm. dinaa ne en toute sincérité je félicite le maire. il n'est jamais trop tard de bien faire mhm. donc li nga xamante ne bii man moom laa ko doon ñaan moo di mu am muy concerté wu ci yenn yu bari mais xam ngeen ne baaxoon na ah ñu am assainissement. Mhm. mais il n'est pas trop tard pour ñu def assainissement ah bu ñu defee assenissement mais ñoo fi gën a dëkk ah bayaalu Ma Malick Fall ak bayaalu kii du footballukaay am nañ terrain. Mhm. képp ku bëgg footballé na nga dem ci terrain yi nga football ah parce que fi bo fi footballé auto yaa fi jaar xalé yaangi fi mag ñaangi fi bu len bal dalé da nga len di lor ah donc xalé yi bu ñu football am nan espace buñu footballé muy terrain bi nañu footballé fofu même mbedd du pour football ah mbedd pour kay la ah té lo ci def leneen lu du lolu rek da ngay def lolu ñu naan entrave té lolu baxul lu ñëpp bok nak ah na ku nekkay rafetal jëm ci sa boor mais nag kii boobu daal bu ma sañoon ak assainissement bi nii mu defaree tali yi ah nañ gaaw defar assainissement bi. sinon mhm. canalisation yi. Mhm. ah sinon buñ ko gaaw la def bu nawet ñëwee on risque encore d' avoir les mêmes problèmes ah. Mhm. donc loolu la rek mais nag di ko wax euh, euh, jërëjëf ah buñ sañoon nag mu mu mu gën a mu ñu gën koo booster mu gën a gaaw ba pare euh, mu bañ a am. Euh, euh, ñoo xam ne ñoom lay impacté yaa ngi ma dégg parce que fi mu toll gis ngeen ne yoon bii si sama ginnaaw kër bu nit gaañoo fi la ñuy jaar pour dem ci armeel yi mhm. mais léegi mënatuñ fee jaar dañuy wiiri mhm. donc léegi vraiment euh, c'est urgent que ñu euh, dindi foofu mhm. defar ko même bu dee dañ ci dañ koy continuer ba nga xam ne day dem ci armeel yi parce que am na ay niw yoo xamante ne bi yu day ni ay papa caam yooyu bu leen nit ñi naree yenu di dem ba ci armeel yi day metti ci oto lañ leen mën a teg ah te oto yi ah duñ mën a jaar si suuf kon nag nañ ñu dimbali rek ba nga xamante ne bi tali yi uh-huh. ñu dégager voie yi ba pare tali ko mu ceinture ko nga xamante ne bi ku ci mel ni Dior Thiam bés bu ñu yàlla dimbalee ba mu dee bu boobaa bu buñ ko tegee ci oto yi ah dinañ ko mën a yóbbu ba foofu mais buñ ko naree gàddu dinañ sonn de ah xam naa monsieur le maire yaa ngi may déglu te lii lii ma la wax ah di ci taxaw c'est bon ah Bouba voilà non la ñuy jaaree rek ñu dem si li nga xam ne moom mooy ñaareelu pàccu émission bi mu ñeel li nga xam nous moom actualité nationale suñu waxee actualité nationale nag euh, day ñeel li nga day soxal li nga xam ne moom moo sur euh, tout l'étendue du territoire national donc fini ñuy commencé mooy euh, gisoon nañ ce leader ki nga xamné mom moom Khalifa Sall mu entamé won ben ben tournée nationale mu tuddé ko woon motali yi donc ñu déggee mottali yéene yi rek day mel ni comme si que y avait ay amoon na ay yéene yoo xam ne moo fi nekkoon ses prédécesseurs ñoo ko commencé woon léegi moom mu fas yéene ko mottali donc yéene yooyu noonu mu fas yéene mottali donc bëggoon nañ nga ñëwaat ci euh, loolu noonu tuuti pour que ñi nga xam ne ñoo nekk di ñu seetaan tey ñu dégg euh, tournée nationale u taxawu Sénégal ñu tuddee ko mottali yéene yi te xam ñu yan yéene la ñuy mottali donc euh, il est que ku ci mel ni yow mu indi ci tuuti mm. ay éclaircissement comme ça ñoom ñu mën ci bénéficier wu mm. ah, xam nga boo déggee mottali rek lu matul moom la ñuy mottali mais nag lan moo nekkoon yéene bi yéene bi moo nekkoon wër senegal yëpp saafonteeg ñi ñëpp xam ne kat nun xalifa mooy suñu mbër mi ngi nii moo fi taxaw euh, gis nga man dama bëgg euh, ubbi bopp ñi ñi ci lenn muy lan muy ndax Euh, Khalifa dina nekk candidat ak du nekk candidat jàppaleen lii ma leen wax une fois pour tout que Khalifa sera candidat xanaa ndax ah jant bi fay bu bés bu ngeen jàppee na jant bi fay na rek xamal leen ne Khalifa du nekk candidat donc Khalifa sera candidat te nun nag ñi ngi def tout ñaan lu nekk ñaan def lépp liggéey pour que vive le président 2024 mu nekk Khalifa Sall nun ci loolu lañ taxaw ci loolu la ñuy dox te loolu nag lañu gëm yaa ngi ma dégg te loolu it insha allahu loolooy am bon bu fekkente ni bi ci li nga ma wax. tournée nationale bi. tournée nationale bi dañoo dem daje Kaolack ah képp koo xamante ni bi yaa ngi woon ci Sénégal nekk un un coordinateur.

Kamil bi moy 6 sixième édition donc yagna am hein donc fassiyene na ñew le premier yag dega may dégg and ak ñun ñu ñaanal ko fassiyene ñun ko Kamil akben ñaar fukki ak ñaar fukki ak lañ ko ren fassiyene ñun ko waccel ñaar fukki kaamil ak ñet te li suñu yene ñu ñaan yalla modi di bo xamanteni bi dem nañu ba egg fa ah dama bëgg Sénégal yépp département yépp dëkk yépp ñu jàpp benn bés boo xam ne bés boobu bésu Khalifa Sall lay doon fu waay toll ñu ñaanal Khalifa Sall wàcce kaami ñaanal Khalifa Sall gis nga Khalifa Sall il est national gis nga Khalifa Sall pour Sénégal yépp la te nag suñu sauvetage ëllëg mooy Khalifa Sall ku ko xam ak ku ko xamul ku ko nangu ak ku ko nanguwul parce que lépp looy seet ci ku baax mi ngi ci moom lépp lépp looy seet ci ku xam mi ngi ci moom xalifa Sall kañ la nekkoon ministre yàgg na donc un homme d'état mooy xalifa Sall du comme ñi nga xamante ni bii ñi ngi fi nekk ah, di waxante lu ne di defante lu ne yooyu doo ko ci dégg xam nga man def maa yéem ndaxte nit tëj la kaso def la lu nekk nga génne ne baal naa ko mais vraiment bima ma lolu samay rangoñ da don tour mu ne ma moom moo ma ne rancœur ak haine xajul ci xolam te effectivement boko boko xolé rek mu waxee rek nga xamné ki nitu jamm la nun Sénégal nak nitu jamm lañ bëgg nun Sénégal nit ku xam ku mën doxal ku jëlee réew mi fi mu nekk guto gi mu nekk ah yóbbu ko bu boba nak lañu am un pays émergent mais li ñuy wax émergé wu ñu dara ah bu fekkee bëgg nañu un pays émergent donc voilà leader bi nga xamante ni bii ëllëg moo ñu yóbbu ci l'émergence parce que émergence mën la ànd ak ay xuloo mën la ànd ak ay xeex mën la ànd ak tamante dëmm mën la ànd ak di tëj nit kaso loolu àndul ak émergence émergence lan la liggéey la ñëpp nañ liggéey ñëpp nañ am ñu yéenante jàmm dëkk bi nekk ci jàmm man loolu laa tudde émergence mais leneen lu waay mën a wax fi mu toll da ngay feebar doo mën a faju émergence am na ñoo xam ne tey dañuy gobar jaasi bu ma nee nag mhm. ñu bari duñ xam gobar jaasi xam ngeen lan mooy gobar jaasi mooy togg añ tibb ci reer loolu émergence la ah kon nag nun bu fekkente ni bii dem nañ ba denc ay milliards ak nangam nangam mhm. am na ñoo xamante ni bii tey ñaar téeméer boo xam ne mën nañ koo añi amuñu ko mhm. donc dañoo bëgg lépp law lépp baax ah te giñ naa ne giñ naa ne laa la wax te li ma lay wax lu ma wóor la bés bu xalifa yoree réew mi ah métit yi yëpp dinañ ci génn feebaral dem hôpital xoolal li ngay daj ah pays bu émergent dina nekk ci loolu donc nun daal li ñuy ñaan yàlla moo di yàlla na yàlla jël réew mi tekk ci loxo Khalifa Sall suñu yaakaar ginnaaw yalla ak yonent bi. waaw balaa mooy suñu yaakaar. maa ngi ci dag bi balaa ñu doon génn ci lool rek. vu que mm-hmm. yaa ngi woon ci point wu ñaanal Khalifa Sall bi. Mm-hmm. parce que gis nañ ne comme ni nga ko <coughs> waxee sixième édition mu ngi nii nga koy nga koy def. Mm-hmm. donc bëggoon nañ xam tamit inspiration bobu ak euh, moti kii bi initiative bobu non fan la jógee. parce que ah. depuis Khalifa Sall avant muy am euh, je pense que bu mu amé ak euh, yone ay problème ak yu mel non bañ encaissé ko won ko. donc ak yu mel donc ñu ngi doon gis ngay am de façon perpétuelle chaque année nga koy def di ñaanal Khalifa Sall. ba récemment mooy euh, bu daaw bi rek euh, le président le député maire Oumar Cissé. Mhm. assisté woon na ko si suñu kanam ñu fekkee ko mu jël benn témoignage bu am solo. Mhm. mu jëmale ko si sa si yow sa personnalité bi nga. bi ngay mhm. incarné ci ci ci li nga xam ne moom mooy taxawu Sénégal ak yu ni mel donc. initiative boobu fan la jógee lan moo tax nga. Euh. jékki saa yi rek loolu traversé sa xel parce que tout à l'heure aussi wax nga lu ni mel. nga ne boo sañoon tey. Mhm. dinañ toog benn bés boo xam ne dañ koy mhm. jagleel Khalifa Sall mu nekk benn ñaan national pour Khalifa Ababacar Sall mhm. donc inspiration boobu noonu fan la jógee selon yow balaa ñuy jàll euh, si euh, dernière jërëjëf bi ma posé question boobu dinaa ci sawar a tontu inspiration boobu fi mu fi mu jóge moo di bi ma gisee ñu jiital Khalifa ak ni ma bëgg Khalifa te mënuma ci dara ma jël sama kurus jox ko ko lan laa man tàllal sama loxo sama borom ñaan yàlla mu génn ko ci lii donc man aw ma arme bu ma xeexee ak ñoom pour génne ko awma len lu dul taxaw tàllal samay loxo sama borom ne yàlla yàlla na nga génn xalifa ci lii mu nekk. Mhm. ma toog ne non loolu doyul naa wàcce kaamil ñu wàcce kaamil ñaanal ko booba il et en prison. Mhm. ah donc ñaari defe naa yëpp mu ngi woon en prison. en prison mhm. waaw donc loolu laa fas yéene continuer gis nga xalifa bu nekkoon président yi ah. at mu jot ci koor kami, ko wàccee li kaamil yaa ngi te bu ma sañoon di wàcce 114 kaamil nga xamante ni bii mooy tolloo ak ak saari alxuraan yi mm-hmm. ñu ko koy ñaanale ndaxte moom ak nekkam fi ak wéram suñu koom la nun kañ la ñuy xam loolu kañ la ñuy toog ba xam ne xalifa bii kat c'est un bien précieux pour le peuple sénégalais mm-hmm. donc man loolu moo ma xalaat ne man daal arme bi am mm-hmm. mooy ñaan te yàlla wax loolu ci alxuraan yàlla moo ne ñaan mooy armu jullit kon que arme boobu laa am nag man dinaa ko defal pour que fa nga xamante ni bii moom lañ yaakaar ak liñ bëgg ci moom yépp yàlla mottali ko ci moom

bu ñu xool xoolee tolluwaayu Sénégal tay ñenn ñoo jóg né par exemple paré nañ pour nekk ay candidats. Mhm. Bouba ma coupé ah. Hein? fais vite waaw. Hein? c'est bon voilà léegi ñu fas yéene wa je continuer directement hein, c'est bon C'est tension sociale voilà c'est tension sociale. c'est bon madame. voilà ñu avons ko tension sociale yu Sénégal ak lu bu ñu demee bay gis euh, façon bi nga xam ne ñu ngi koy comporté ak opposants yi ak yu ni donc commencé na tey xel te bu ñu jàppee datu élection yi c' est pour dire que élection day am en 2024 le 25 février inshallah. allah. Mhm. léegi ñu toll ci li nga xam ne moom mooy euh, sénégalais yi soxla nañ xam kan ak kan ak kan ñooy doon candidat. bu ñu l'exemple de votre leader ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall am problème ak li nga xam ne moom justice toujours ak problème mu caisse d'avance bi nga xamné ne mo ndot mo moo won ci si donc ba légui ñu ci wax affaire de amnistie ak yu mel de même que le cas de Karim Wade ñu ngi wax affaire amnistie waa wa wa wa Sén Sénégal wa PDS autant pour moi wa PDS aussi nous ñoom tamit bëgguñu ñu amnistier leader. Hmm. parce que amnistier euh, Karim Wade wala amnistier Khalifa Sall ça veut dire que l'un qu'on ko doon toppee tey moom moo def. mais dañ hmm. ne dañ ko jéggal acte hmm. donc c'est pour dire que amnistier l'on lay tekki pour nous ko donc nous avons aussi le problème de Ousmane Sonko. ñaari procès des procès qui muy en cours. ñoom ñëpp ñu am ay problème juridiques yoo xam ne tant que réglé wuñu ko pour ñu nekk candidat wu seen euh, si li nga xam ne moom mooy présidentielle euh, de 2024 yi day nekk problème mhm. donc tey yow ban jàngat nga ci am ak li nga xam ne mooy li nga xam ne moom mooy euh, troisième mandat wu Macky Sall bi ñenn ñi mhm. ne ñi nga xam ne ñoo faree ci mouvance présidentielle bi ñoom tey bu ñu sañoon Ken Macky Sall du am benen candidat budul dul Macky Sall Macky Sall aussi prononcé woogu ci juste dafa ni oui ni non jusqu'à présent toll nañ fo xamné peut-être euh, le 3 février le 3 avril bi ni dina ci prononcé donc yow euh, en tant que homme politique en tant que porteur de voix donc yow tay lan moy sa lecture politique ci euh sama lecture politique defe na né peut-être mom la ci ñëpp xam modi di ku la boot di bëre mhm. do bëgg mu daanu mais Macky Sall xam na né bu mënoon a wucc nguur gi daw dina ko def mais fu muy jëm fu mu aw ñii nga xam ne ñoom lay jëm ak ñu naan amnistie soxlu ñu amnistie hmm. effectivement yaa ngi may dégg nun incha allah incha allah ñii muy bañ ñu bokk ñëpp ñëpp bokk ñëpp dinañ bokk parce que nag yaa ngi may dégg nous on est sénégalais yaa ngi may dégg bokk ci réew mi ba pare def ci réew mi loo xam ne moom defu ko ci en réalité li ñu def ci réew mi moom defu ko fi hmm. donc mënta taxaw rek ne du bok bu ko defé mhm. ñukay baña ñu ñu ñu ne lu mu wax lool la lool la Wajah non mhm. xam nga Macky Sall ma ngi lay wax ben affaire bu ndaw waja ak waja ak ah tay bu fekke ñew na ñu ne ma ñu ñu ñuy ñu ñaar mhm. ëlëk ñi may atte góor xule ëllëg may atte kenen mais nan wax ak man yaa may dégg dafa tolok nak sénégalais mo am ben jikko bo xamanteni bi baaxul nit bu dee sa nit dang koy wax dëgg parce que bu jëkul moy mucc ah sëriñ yi kan moko ci ñimé demati di ko wax ne ka nangam ak nangam mom xamna na ne li mu bëgg instauré doon ñu jappalé ko ci khalifa Sall di ko defal lu nekk nak te gis ngeen lim ko lunek lu nekk khalifa Sall defal nako Macky Sall mais gis ngeen lim ko fayé yaa deg, may dégg inshallah allah ndigam neex na bu jant bi fayul comme li ma am habitude di wax ah mag Sall dina dégagé wu. ci nii nag baa nale dina dégagé wu moom si à coup bu ko defee ñu jël réew mi tekk ci loxo yu sell ku mel ni xalifa Sall bu ko defee gutta gii ñu nekk ak métit yi ñu nekk ñu mën cee génn. voilà donc euh, euh, mu nekkoon waxtaan boo xam ne am na solo lool euh, donc pour yéen ñi nga xam ne yaa leen nekkoon di ñu suivre yéen a ngi woon ci li nga xam ne moom mooy seen émission Ndogou avec donc fii la ñuy ndar keppee li nga xam ne moom mooy bile jotaay. donc voilà donc. voilà justement bu la neexee aussi mën nañ rebondir ci loolu vite fait rek balaa ngay tàggatoo waaw mooy ci li nga xam ne moom mooy wàllu conseil conseil départemental yeeg bu voilà donc ñu bàyyi la en une minute rek nga def ci benn genre synthèse vite fait d'accord léegi loolu moo di yàlla dogal na man ma nekk conseil ci conseil départemental bu Rufisque ma yore les affaires religieuses mhm. wante nag dafa tolloog nit ki boo rëbbee ah da ngay ñaan yàlla jam rab wu rëy nga indil ko sa njaboot mhm. te man sama njaboot ñan la mooy waa commune de Bambilor mhm. waaw bu ma sañoon lépp lu ñu am ba lépp lu ma am lu ma mën a yanu indil leen ko ma indil leen ko donc ma leen di yëgal na leen euh, bu ma sañoon xale yëpp booloo jigéen ñëpp booloo dafa am benn forum international buy am avril boo xamante ne bi partenaire yëpp dina ñëw jóge Europe ñu jóge faneen fu nekk bu ñëwee ñooñu buñ formé la ñuy formé ah soit ñu nekk ay association soit ñu nekk ay ay GIE ba nangam ca la ñuy yëngatu ñu seet ka leen ci mën a dimbali ah ñu won leen seeni programme bu ko defee ñu jàppale leen ci parce que ci noonu lañ leen mën a dimbalee gis nga xale yi kenn du ñëw fekk leen jox leen xaalis ne leen am la def leen déedéet defar leen seen i projet wane leen li ngeen bëgg a liggéey bu ko defee ñu seet nan leen leen ci jàppale pour que ngeen mën a avancer parce que bu dee dee fukki nit bu yàlla defee mu barkeel mën naa def ba téeméeri nit nekk ci yëngatu ah noonu la ñuy dimbalee nit kenn du may nit jën mais da koy jàngal mu napp donc ñoom nañ élaborer seen i kii ñëw jige suñu ñu xool ci forom bi nan lañ ciy war a mën a taxawee ak nan lañ ci war a mën a def ba nga xamante ne bii ah, loolu dina am njariñ ci gox bi yépp nag ci gox bi yépp mu am ci njariñ dinaa ci profiter di gis naa liggéey bu rëy bi nga xamante ne bii ah, Pape Mamadou Fam mi ngi ko ciy def ah ak benn jàmbaar ju mel ni Moustapha Lo donc ñooñu vraiment gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen di ñaanal yàlla ah, parce que lépp lu ñu indi ci suñu kaw rek lañ koy dotti xam ngeen ne day am na ñoo xamante bii tey dëgg-dëgg mérité nañu am loo xamante ne bii dinañ ci mën a koo wax mu ne damay teral sama yaay damay teral sama njaboot mhm. boo liggéeyul loo foo koy teralee boo liggéeyul looy def kon nag fexe liggéey am yaa ma dégg xale yi mën a liggéey jigéen ñi liggéey ñëpp liggéey mhm. jàmm mën a am Sénégal mën a naat waaw ñun daal loolu loolu mi nga xamante ne bi mooy suñu yéene te nañ ciy dox ñu ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp voilà ñu ngi ah. lay gërëm bu baax a baax. di ah. kontaan ci invitation bi nga xam ne accordé nga ñu ko. Mhm. voilà ma bàyyi la rek nga def xanaa say dernier mot di la wax kontaan nañ trop ci. Mhm. comme nu ma ko waxee tout à l'heure mhm. invitation bi nga xam ne accepté nga ñu ko ci li nga xam ne moom émission euh, ndogu ndogu avec. donc dama lay bàyyi rek nga tàggatoo ak ñi nga xam ne tàggatoo bu dul tamit voilà ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon di la seetaan à travers les plateformes de la zone 7 TV. que ça soit ci Facebook bi ci YouTube bi ak ci li nga xam ne moom réseau câblé yeeg yu ni mel. donc dama lay bàyyi rek nga tàggatoo ak ñoom. ah donc ñëpp ñoo xamante ne bii yéen a ngi suivre seen xarit bii li may jëkk a def mooy jéggalu leen parce que accident yi gën a garaaw mooy accident làmmiñ mm-hmm. maa ngi ñaan yàlla li may wax te xam ne sama xol laa ko tibbee bu ci benn erreur nekkee rek na ngeen ma jéggal ngir yàlla lu baax dong laa ci jublu. lu bax ak lu der rafet dong la ci djublu di wax lepp lu ma ci wax lo xamne ne la nak mang kay djeglu jéglu di ñaan yalla yalla na senegal avancer bu senegal avancer nak yalla na Bambilor avancer bu Bambilor avancer yalla na kotan avancer man dal lolu lay ñaan mhm. yaa ngi may deg mhm. te euh, sans waa jaag may retat xamna na lu tax ma tudd Sébikotane mhm. donc euh, nonu la di neen ñi ñi nañu nañu bayyi passé yépp ñu jàppante te xam ne ci mbooloo ci leen mën a amee lu ñu bëgg yàlla nañ yàlla boole jàppale ci barke yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam voilà encore une fois di jaajëfalaat ñëpp di jaajëfal surtout ñi nga xam ne ñoo ñuy topp di mélanger aucun effort à chaque fois di suivre li nga xam ne moom mooy la télévision Jaune 7 TV di amone euh, doon am mbekté ak banex bu baax ba surtout di dalal suñu suñu tonton suñu papa suñu xarit suñu lepp di wuyo ci tour Alaaji Lamine Fall mom lañ doon dalal tay ci seen émission ndogu avec wax ndogu avec nak comme liñuy wax ndogu avec l'imam ndogu avec des célébrités ndogu avec euh, des autorités yo xamné donc dañ leen joxat dig daje à très bientôt sur les antennes de la zone 7 TV que ça soit sur les plateformes wala ci réseau yeeg yu mel donc restez scotché euh, sur la zone 7 TV yenen programme ñu ngi ñew ak yenen émission yoo